waaye itam dafay jàngale lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu diine te itam dafa nekk émission boo xam ne lépp loo xam ne gis-gis la boo xam ne am nañ ko ci réew mi ak ci bitim réew dañu koy waxtaanaale ci biir émission bi émission bi nag tey ñu bëgg cee indi ay tomb yu wuute di jëggalu nag mbokk yi nga xam ne ñoo ngi doon seetaan yépp ci gëj gi nga xam ne gëj naa am ak rediffusion yu bari lépp rek ñàkk jot gi ak tukki yu bari moom moo ko waraloon. waaye ñu ngi koy jéggalu bu baax euh, soppe yi ak xarit yi ak boroom xam-xam yi nga xam ne dañuy topp émission bi fu ñu toll ñenn ñi di ci fàttaliku leen ci asraar ñenn ñi di ci jànge ñëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax a baax tey nag dañu bëggoon a leeral ay tomb yu wuute ci biir asraar waxaale itam ci mbir yi nga xam ne mi ngi xaw ci biir réew mi da nekk mbir yoo xam ne mbir yu jaxasoo la di jaale itam suñu mbokk suñu soppe suñu xarit di Sidi Lamine ñas di nit koo xam ne nii nit ku baax la nit la koo xam ne nit ku xeexal dëkkam la waaye nit la koo xam ne itam nit ku taxawu diine islaam la waaye nag nit la koo xam ne exemple la ci doomi daara doomi daara ju nekk war nga bay waar ci lépp loo xam ne luy jëmale sa réew kanam la dama wax ne ci sama gis-gis man doomi daara jenn muy ku ñu woowee doomi soxna di ab sëriñ war na moytu li ñuy woowee politique bépp sëriñ war na ko moytu parce que euh, politique dafa am loo xam ne nit ki nga xam ne moo ci dox jëm day am fu mu far am ñu far ak ñoom te ab sëriñ dafa nekk koo xam ne ñëpp la fi nekkal moo tax moom chaque jour dafa war a féete rek ci askan wi bu fekkee ne danga di kilifa ak diine am nit ñu jokk ci yow te bokkuñu ay gis-gis bokkuñu ay bëgg-bëgg saa yoo faree fenn rek lor nga leen saa yoo faree fenn rek dugal nga leen ci ay jafe-jafe yoo xam ne duñu xam nuñ koy lijjantee ndax dëkk lañ nekk yoo xam ne kenn mënut a tàqale pas-pas ak doxiinu dëkk ndax yonente bi salaatu wasalaam daf ñoo jàngal ne bëgg sa réew ak dox jëm ci lu jëmale sa réew kanam ci jaamu yàlla la bokk kon nag kilifa gi nga xam ne kilifa diine la chaque jour dafa war a taxaw rek ci parti civile bi di leen dimbale waaye su faree ci benn parti politique rek indi na gaañte gu rëy rëy ci xoli jaam ñi indi na gaañte gu rëy rëy ci xoli waa këram moo tax da ngay gis ne di chaque jour bu daan xeex képp kum xeexle ba nga jot ci réew mi rek dalay bàyyi dem àndaat ak réew mi te loolu lépp firnde ji ci Macky Sall mii fi mujj bi ñu demee ba deuxième tour yi gis nga ni mu roccee taxaw nga xam ne kon moom intere réew mi rek moo ko ñoroon njëriñul askan wi rek moo ko ñoroon loolu nag gépp koo xam ne doomi soxna nga ju ay nit topp sa ginnaaw war ngaa jànge ci loolu jamono ji nag jaxasoo na lool élection yi jub si na ñi nga xam ne ñu ngi leen woowee sëriñu asraar ñëpp tëb nañ ku ne di fëgg sa dënn di wax na yaa gën a xam turu yàlla di wax na yaa dàq ñaan di wax na yaa mën a fal buur di wax lu nekk njabarkat yi jóg nañ ñoom it même chose def ay sacrifice yu bon jàpp nit rey ko ndax falu jàpp nit dagg ab cëram ndax doon buur sacrifier nit mala sax kenn waru ko sacrifier ngir falu buur waxuma ak doomu aadama dañu delloo xel yi ci yàlla lu am solo la ab jaam war naa nangu dogal gi nga xam ne moom la yàlla di dogal ci moom war nañoo moytandiku bu baax a baax a baax a baax lii nga xam ne dafay jeex rek te nit am na loo xam ne su ko ko mbir jaralee war ngaa xam ne taxawu am réewam taxatut nit bu ma nee ray doomi réewam ngir falu bóor kooku jàppalee tut dëkkam kon nañu ràññee ñi nga xam ne dañoo jóg ngir defar réew mi ak nit ñi nga xam ne dañoo jóg ngir defaral seen bopp mu mel ne réew mi dafa egg foo xam ne jaxasoo gi dafa jéggi day wax mbooleem ñi nga jàppoon ne ay gor lañ tey ñépp fari nañ ca boor te ñëpp taxawoon nañ fii waxaloon ci seen làmmiñu bopp ne dara mënu leen taxa a transhumé ñoom ñëpp tey dem nañ nguur nag kenn waxul kenn bu mu ànd ak moom waaye kilifa ak diine moom war na ko moytu képp ku nag ku di ab politicien fa nga jàpp ne boo fa faree loolu mooy defar réew mi sañ ko ko waaye nag li ëpp a def mooy wax lii ba ñëpp gor yëpp jàpp say wax nga tebbi ko loolu moom ëpp naa def ab jullit dafa war a sàmm kàddoom ab jullit dafa war a nekk koo xam ne dafay am ak bañ rus ab jullit dafay nekk nit koo xam ne su waxee dara ba noppi du ca dellu ginnaaw ab jullit dafay sàmm ngir ëllëg aw wayam loolu lañu yorant bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal waaye léegi nag dafa mel ne ñiñ du woowe ay jullit sax ñoo gën a maandu ñoo gën a jub ñu ñuy woowe ay jullit lu mat a bàyyi xel la moo tax mbooleem kilifa yi a diine yi itam ni ko kilifa yi asraar yi di defee rek ak sëriñ jabar yi ci lañ nekk ñoom ku ne ngi fëgg sa dana di wane ne yaa yaa yor mbooloo ku ne ngi fëgg sa di wane ne yaa baatin ku ne ngi fëgg sa dana di wane bu président bi ñëwul ci yow doo falu loolu rek moo fi nekk tey tey nag ñu xam ne fal ak folleeku yàlla moo koy joxe yàlla mooy fal ku ko soob di folli itam ku ko soob jab jaam munut lu dul sabablu ci yàlla kon nañ bàyyi xel bu baax te ñu xam ne réew mii ñu nekk ñu ñëpp ñoo ko bokk su fekkee defar nañ ko defar nañ réew mi yëpp su fekkee yàq nañ ko itam yàq nañ réew mi yëpp lu ñëpp bokk nag defar ko moo gën yàq ko. ñu ngi jéggalu nag ci li ñuy bëgg a wax ndax da cee am loo xam ne te mu xewoon ci dëkk bi. faaw itam ñu wax ci dafa am mbokk mu ma laaj ne ma lan moo tax li xew léegi di xew nit saña rey jëkkëram nit saña taal jëkkëram nit saña def lu mel noonu lu bon ma ne ko ñun dañoo boole lu bokkut ñun bu ñu yàlla xiiree ay ceddoo la ñuy doon di ndamoo ak ceddo bu ñu yàlla xiiree nit diine la doon di ndamoo diine bu ñu yàlla xiiree ay tubaab lañuy doon di ndamoo ak tubaab ñett yi nag askan wu ko boole sa lépp dafay tasaaroo bu fekkee dangaa dem wut soxna ñu may la ko ci diine ci farata ak sunna nga demaat ca tubaab ba ca mairie ba ñu sinewaatal la polygamie wala monogamie yaay xool loo ci signé nga jugewaat fa dem jël sa appartement bu ndaw wala sax sa studio nekk faak sa soxna dund faak moom juróomi at cinq yu mat su weekend jotee ngeen ànd weekend yi soo leen yoree dara dem resto di ànd di defi lu nekk ba mu jàpp ne yow kese kese kese la ak moom soo xëyee nag dugg ci leneen da ngay indi problème bu mag parce que préparé woo ko ci moom nit li nga xam ne waajaluñ ko ko su nee rës ci kawam mën naa waral lu nekk léegi nit nga dund ak moom juróomi at bi ngeen xamantee ba tey yoo xam ne lépp danga nga koo gëmloo ne yow nit nga koo xam ne amoo sa suwaa mooy yor benn jabar am ñaari doom Ah, organiser suñu vie wax wax wax wax wax wax nga dem ba benn bis rek nga xëy ñëw yëkkati loo xam ne attanu ko teg ko ci kawam mën naa indi cunne mën naa indi lu nekk nit su fekkee ne da ngaa pare pour am ay soxna yu bari da nga koy pare ci ki da nga koy préparer ci soxna si nga xam ne moom nga yor mu xam ne yow doo góor goo xam ne ci benn soxna nga yem diine ji nga bokk daf laa may nga takk ba ñeenti soxna su la ko diine ji mayee nga wan ko ne ko diine ji may na ma ko mu gëm ko jàpp ko nga waajal ko ci moom soo koy def du ko bett waaye nit su fekkee ne yow waajaloo dara ci moom ci ne yow da ngay am beneen soxna nga xëy benn bis rek takk beneen soxna mën na mën na indi lu nekk parce que gis nga wujje woyofut faaw ñu wax ko faaw ñu wax ko woyofut da nga koy xool ci yaayaa mi mu ñëwoon fekk soxna si am beneen jëkkër musiba dal la kon xam nga woyofut pourtant noonu la te ku jigéen ki léegi ñun société yii ñu nekk dañ koy préparer ci nit ki da ngay juddu fekk sa waajur wu jigéen di wujje ñu waajal ko ci yow nit lu ñu waajal ci moom rek mu oyof am na dëkk yu lekk ay mbooteki si ndax te ko ko tegaloon yaayam yi du ko lekk Afrique centrale gii am na fa jigéen ñuy am ñaari jëkkër te pourtant du diis ci ñoom parce que dañ ko waajal ci ñoom góor ñi dañuy wujje du dara ci ñoom tey dakaar gii da ngay toog gis nit ku ñëw présenté waajuram ni ko kii sama copain la pourtant du diis boo demee Touba boo ko fa defee ñu rey la bu timis jotee te gisoo sa doom ju jigéen da nga koy wëri te fii da génn 4 heures de matin gis xale bu jigéen mu baale ba ñëw nit lu ñu préparé ci moom lu ñu waajal ci moom mu attan ko waaye nit lu ñu waajalut ci moom préparé wuñ ko ci moom su ñëwee dal ci kaw mën naa indi lu nekk ab jullit dafay dox doxiinu jullit fier ci jullit te gi mu doon fier ci sa doomu réew li nga doon ak say réalité dëkk waaye soo nekk fa ñu ko bàyyi ko yow kër ga nga dëkk sa doom ya nga jur dégguñu olof te ngay am olof bu seen wecc sa jabar olof ngay olof yéen ñaar ñëpp ngeen di olof amoo wenn mbokk moo xam ne ab tubaab la sa doom yi juddoo ci kër gi nga yar leen ci kër gi duñu wax olof ñu ko hmm? léegi kooku su xëyee ne nag dafay bàyyi loolu mu defoon 10 ans wala 5 ans wala 15 ans ne day day changé day xëy rek brusquement changé dugg ci leneen kenn du ko attan demal Touba doo gis mukk ku takk wu keneen ka tas doo ko gis de boo ci dëkk yi doo gis mukk Saalum gii wala Touba foofa dem da gis nit ku yor ñeenti jabaram ci kër xale boo xam ni nii amul fanweeri at mooy am mooy am ñaari jabar te benn problème doo am parce que dañ ko préparé ci ñoom dañu ko waajalal mais tey dafa am loo xam ne soo ko waajalut ci nit ki soo xëyee def ko musiba lay doon lu ma bàyyi xel la. moo tax nit li nga xam ne moom nga bëgg a doon da nga koy wane ci teel ki nga koy séqal parce que nag soxna nawle la. danga koy wan ne ko ah man kat góor laa goo xam ne damay takk ay soxna mu leer ci boppam jeex na saa yoo ko defee du ko bett waaye nag ah man kat nii laay doxee dem ba ci biir nga nga changé mën naa indi jafe-jafe waaye nag du tax ki ko def ñu war koo def loolu. nit su fekkee dafa rey nit ci islaam te tay ko dañ ko war a rey lii mooy li nga xam ne mooy li góor gi war a def waaye nag du tax bu bu ko teggee. ku jigéen ki da ko war a taal wala da ko war a rey wala déedéet su ko su ko taalee mu dee dañ ko war a rey ci lislaam lu mat a xam la itam ndax ab sëy lu simple la da ngeen doon dund di ànd ndax dara dem nga yaw ba loolu arrangé tu la bàyyil jërul taal jërul rey dangaa ñëwoon di sëy ak moom bëggoon a yem ci moom kese yéen ñaar kese ngeen ànd di dund yow léegi dem nga ba loolu bu dutut a nekk moom nee na day takk beneen soxna yow attanoo loolu demal sa mu dem yoonam yàlla yaatu na mën nga am lu ko gën fuuf moom it mu am lu la gën wala mu am lu la yées àdduna noonu la kon du jar loolu du ko jar ndax nit soo ko rayee bu dee suñ dëkk yi nga xam ne ku ray nit duñ la rayit soo rayee nit du la tax am jàmm sa vingt ans kaso xaj na ci wala lu ko ëpp teñ bàyyi li xew léegi nag baaxut ku rey nit ñu wutal la kayit dof loolu baaxut de loolu day yàq ab dëkk de ku rey nit dañ laa war a teg ci yoon lu mat bàyyi xel la waaye rey nit defut 6 mois ñu gis la ci bitti ñu naan daa wérutoon te ñi la xam ñëpp mos ñoo xam ci yow ak dof loolu ay caaxaan la moo taxit suñu président yi war nañoo xoolaat dëkk bi am na ci solo nit ku teg gi yoon dañ ko war a teg ci yoon ndax yonent bi sallallahu alayhi daf ñoo jàngaloon ne nii dimbalee kuñ tooñ ñu ne ko yonent yàlla bi nañ la dimbalee kuñ tooñ mu ne dañu koy jàppule ba joxaat ko dëggam mu ne waaye dañu dimbale itam ki tooñ mu ne ñu ne ko ku tooñ nag kon nan lañ koy dimbalee mu ne ku tooñ moom da nga koy teg ci yoon noonu lañ koy dimbalee nit su fekkee def na lu mu wërta def dañ koy teg ci yoon noonu lañ koy dimbalee kon itam mbokki jigéen itam ñu bàyyi xel ñoom it loolu bu baax ñu xam ne doomu aadama bi su fekkee ne daa def loo xam ne waru koo def itam bu mu tax nag nga jël ca bakkanam ndax danga ci am ñaari daan bu fekkoon ni dëkk bu àtte bi islaam am bu ñu la rayee sax oyof na ndax daanub yàlla du la ci toppaat waaye bu dee dëkk boo xam ne àtte bi islaam amu fa ñu la tëjoon 60 ans itam suñu la génnee boo deewee boo demee yàlla itam dana la àttewaat ndax àtte boobu yàlla reconnaître ko kon lu mat bàyyi xel la suñu jógee foofu ñu dugg nag ci xam-xam bii nga xam ne mooy xam-xamu asraar di xam-xam boo xam ne xam-xam bu yaatu la bu naqaree waxtaane waaye nag bu neexee waxtaane ci ki nga xam ne xam na luy xam-xam bi ndax dafa bari ay mbir yu laxasu ci biir xam-xam bi te ñu néew a neew a néew xam ko ñu néew a neew a néew man cee wax lu leer dafa am mbokk mu laaj dafa bëgg a xàmmee lan mooy xilmu asraar ak xam-xam bii ñuy wax médecine traditionnelle muy xam-xamu sunguf ak reen ak xam-xam bi ñuy wax xam-xamu njabar laaj itam lañ la ñuy woowee sëriñub tariyaax ñu njëkkee leeral luy sëriñub tariyaax sëriñub tariyaax lu gàtt la benn livre la woon rek boo xam ne tariyaax la tuddoon secret asraar yu bari nekkoon ci ku këru woon livre bi mokkal ko wala nga amoon ko ñu naan sëriñ ba nga xam ne daa mokkal téereb tariyaax ba loolu rek moo indi sëriñub tariyaax waaye sëriñu tariyaax moom benn téere rek la woon benn livre rek la woon mu des li ñu wax ak njabar ak njabar mooy li ñu yonent bi sallallahu alayhi aaye woon te mooy ay xàmb ak ay xaaw ak ay béjjën ak ray dara ngir neexal ay junne ak rab loolu mooy ak njabar nga xam ne yow ci ay junne ak i rab ci ngay ñaan ñoom ñoo lay wax sarax yi ngay def nga leen koy defal ñoom junne ak rab yooyu nga xam ne ay junne yéeféer lañu duñu ay jullit loola mooy ak njabar ku ca nekk ci njabar nga nekk lii ñuy woowe sunguf nag ak reen xam-xam la bu yaatu boo xam ne moo jur médecine moderne xam-xam la boo xam ne mag ñi bi nga xamee ne yii xew xamagut xam-xam yii ñu am amaguñ ko ci la ñu amoon ay pexe ndax yàlla ku yaatu la yàlla defal leen ci seen xam-xam ay pexe yoo xam ne ci la ñu mën a jaar pour mën a faju loola moo indi woon ñuy gëstu di gëstu seen xam-xam di yokk ba xam-xamu médecine traditionnelle bi egsi fii mu egsi bu dee xam-xamu nag mooy xam bu mat bu yaatu boobu nga xam ne dafa jóge ci yonent yi ba egsi fii mu egsi tey ci biir asraar def ci am xam-xam bu nekk nooraani yu waaye ci biir asraar it dafa am xam-xam boo xam ne sulmaani yu la waaye lépp mi ngi ci biir asraar dafa am téere bu mag muy xam-xam bu yaatu boo xam ne ñu ngi koy wax badwaar muy xam-xam boo xam ne ci yonante yàlla Muusa la jóge woon mu ci daan def lu nekk ci turu yàlla wu sii woowu ñuy wax ahamun saqun xalaxun yesun génn te mooy ismu jalaal te mu jàpp allahu karimu rasaq di tur woo xam ne tur wu yaatu la da nga datu cosaan bi ñëpp xam di 644 donte am na yeneen xadat yu bëree bëree bëri yoo xam ne daf cee génne du tur woo xam ne dina fal ci kaw bu ci yàlla àndee dana folli itam ci bu ci yàlla àndee di tur woo xam ne mboolem seex asraar yi fonk nañ ko naw nañ ko mu jóge ci yonente yàlla Muusa di tur wu mag woo xam ne buñ ne ahamu saqako alahu yesu mooy sar mooy saryaani yéegi mooy làkk bi nga xam ne yonente yàlla Moussa doon na ko lakk waaye nag bu dee allahu karimu rasaax bi mooy tur bi nga xam ne ci arab lañ ko tëgg te mu jàpp tur yàlla yooyu te lépp boo ko àndatee rek mu dellu ci àndat bu mag boobu di 644 di tur woo xam ne danañ ko tëgg ci biir ixlaas danañ ko tëgg itam ci biir fatiha boo demee ci li ñuy wax daayiratul ihaata da nga ca fekk di tur woo xam ne xam-xam bu yaatu la boroom xam-xam itam wax nañ ci lu bare bëree bëri ci biir tur woowu loolu lañuy ñuy wooyee badwaar boo demee ci li ñuy wax baraxut xam-xam la boo xam ne seytaane yi ñoo ko yor génnee ko ci biir alquran waaye nag taxut mu baax dafa sax gën a bon xam-xamu njabar dafa gën bon xam-xamu njabar ndax xam-xamu njabar ci xaaw ak fas ak reen rek la nekk waaye xam-xamu batota di tax mu gën a bon xam-xamu batota ay alxuraan yi la jël di ko dëpp di ko jàllawle te lépp ci liggéeyu seytaan rek la di ko booleek loo xam ne sobe la lu mel ni ki ñu ne la da ngay dugg xalwa juróom-ñaari fan dangay ngay du tur yàlla waaye juróom-ñaari fan yooyu doo ci set doo ci jàpp doo ci julli doo ci def lu baax loolu mooy xam-xamu batuta di xam-xam boo xam ne baaxut képp koo xam ne def nga ko boo demee ci borom xam-xam dañ ko ciy bind sax ne képp koo xam ne jëfandikoo nga xam-xam bi bay ba nga xam ne ab yéeféer nga te boo deewee sa war a nga jëm. wax naa la barxut wax naa la batwaar wax la batuta mu des barxut barxut nag xam-xam bu yaatu la moom it waaye xam-xam bu am solo la moom barxut juróom-ñaari xaraf yi nga xam ne ñëwut ci Fatiha ci lañ ko tëgg jàngale naa ko ci ay émission yu bëri. muy fa. ja sa cha xa cha juróom-ñaari xaraf yooyu ci lañ ko tëgg muy génne turu yàlla yu kawe yu màgg ci lañ liggéey xaatimu Suleymaan yooyu jaar yooyu ngay dégg ñu koy wax ak yeneen xam-xam yu bari dafay faj rab dafay faj gàllankoor yu bëree bari yoo xam ne aju na ci biir nit ki kon xam-xam la boo xam ne ku ko xam itam mën na laa jëriñ lu bëree bëree bari bëggoon nañoo nag dugg ci lan mooy xelmul xawaatim ak yeneen xeetu xam-xam yu bari waaye xam naa ne temps bi danañu xoj lool ci ñu mën a egg ci yenn xaatim yi waaye du ñàkk danañ ci junj dara rek ngir jàngale ci tuuti parce que xaatimu Suleymaan juróom-ñaari xaatim la di dox ci juróom-ñaari semaines yi ak li ñuy wax kawaakib bi muy juróom-ñaari biddiw yi di xaatim boo xam ne nit ku ko saxal te saxoo ko lu muy sàkku rek ci mbiri àdduna suñ borom mën na ko ko jàpp ndal dana dindi cat dana dindi rab dana faj lu bëree bëree bëree bari ci fànni yi nga xam ne dana gàllankoor nit moom xaatimu Suleymaan boobu ndax yonante yàlla Suleymaan la ko suñu boroom joxoon bi mu ko koy jox daf ko booleek li ñuy wax xaatimu nubuwa nga xam ne xaatimu Suleymaan bi moo yoroon pouvoir bi nga xam ne ci la doon jëfandikoo ci mbooleem junne yi ak yi ak ngelaw leeg njanaaw yeeg yëpp ko nanguloon moom nguuram nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne nguur du ko féetee ci kaw te nguur mësu koo féetee kaw te nguur du ko féetee ci kaw moom dafa natoon mbooleem li yàlla bind lépp moom yonent yàlla Suleymaan loolu dafay wane ne xam-xam kon la bu riche bu am doole boo xam ne ci yonent bu màgg la wàccoon waaye nag màggaayam boobu ak loolu ko yàlla mayoon ni lépp teewul mu nekkoon nit ku xam li yàlla dogal nekkoon nit koo xam ne nguuram googu li mu doon rëy rëy mosu cee jëf lenn loo xam ne ab safaan la wuuteeg suñ bóori tey yi mbokk yi dinañ ñëw ci mbooleem xam-xam yooyu ñu leen junju ci leen émission yi ñu jublu jàngale ko bu baax leeral ko leeral ko bu wér a wér ba ñëpp mën cee jariñu incha allahu rabbi di leen fàttali nag suñu bis boobu nga xam ne defoon nañ ko daaw fa ci Sacré ci Sacré-Cœur mu tombé mu tombé woon ak ci mois de février bi ren dañ ko jàpp ci le 2 février dina nekk journée boo xam ne na mu demee woon daaw rek na lay demee ren ren nag ñu ngi ko tuddee borom daarul moxti lañ ko tuddee ah, di ko yëgal itam mbooleem murid yëpp ak jullit yëpp ak mbooleem njabootuk borom daarul moxti gi kon mbokk yi lañ ñu mayoon ci waxtu mat na minit yu néew ñoo ci des waaye ñu xam ne rek xam-xamu asraar du xam-xam boo xam ne xam-xam bu ñu war a sàggane la mboolem gone yi nga xam ne ñi ngi daw jëm ci njëkk ñuy fésal ni ay sëriñu asraar lañ dañu dem jàngi ko ba xam ko ba nga xam ne su ëllëgee dana mën a amal réew mi njariñ wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu